mbokk yi euh, mbokku Elvision Média ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax alors seen xarit euh, Mballo moo fi teewaat tey bëgg waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy tiis ak nakar bi dal Sénégal ci fan yi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñi nga xamante ne mooy xale yi ndaw yi tooñuñu kenn defuñu kenn waxuñu kenn mais ñu jël leen di leen sacrifier te war dara waralu ko lu dul pouvoir lu dul nguur lu dul alal. Euh, ba tax na tey ñu taxaw seetlu ngir mën a partager ak yéen loolu noonu mbokk yi xale dafa nekk loo xamante ni alalu yàlla suñu borom la te dafa mag ñi li ñu yàgg di wax mooy réew du développé réew du avancé faw amuñu xale yi nga xamante ne ñoom ñooy jël relève bi donc xale yooyu tey bu dee ñoom la ñu jël di leen sacrifier dafa war képp kuy sénégalais képp kuy jigéen surtout suñu yaay yi nga xamante ne coono bu ne daj nañu ko ngir seeni doom képp koo xamante ne nit nga am xol ñu ngi lay woo ci combat bi nga xamante ne moom la ñuy def ñun waa El ngir xeex xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy sacrifier ci biir loolu comme ni ma leen ko waxee léegi dara waralu ko lu dul nguur lu dul alal ba tax na tey dina xuus ak yéen nettali leen benn histoire ci mbirub nguur maanaam politique dafa amoon bés benn xale ndeysaan daal di laajte papa ji bi mu ko laajee ne ko papa dama bëggoon nga wax ma lan mooy politique papa ji reetaan ko ne ko doom duma la expliquer sax lan mooy politique waaye dinaa la jox misaal pour nga gën a xam lan mooy politique bi mu ko ko waxee ne ko man ci kër gi maay indi xaalis kon maanaam tey booy xool ci politique man maa ci euh, représenté li nga xamante ne mooy capitaliste bi maanaam kii indi xaalis sa yaay mooy jël xaalis bi xool nu mu ko lijjantee ci kër gi xool dugg-dugg yi li manqué ak li li ñuy yokk kon sa yaay tey bu dee ci politique mooy représenté gouvernement bi sa maam mi ci kër gi mooy xool ndax lépp ngi teg nañ ko ci yoon ndax li ñu war a def yëpp def nañ ko ni mu waree kon tey bu dee ci politique sa maam boobu mooy parlement bi jànq bi ci kër gi dafa ñëw ngir daan si dooleem ñu fay ko mu yóbbu këram kon bu dee ci politique jànq boobu mooy tey classe ouvrière ne ko ñun ñi fi ne ñépp nag man sa maam sa yaay jànq bi benn soxla rek lañu am muy li nga xamante ne Euh, sa mbégte sa réussite maanaam ñun ñëpp suñu soxla yow la yow yaa ñu ñor li ñuy daj yëpp pour yow la kon yow yaay peuple bi maanaam yow yaay dëkk bi yaay réew mi yow yaa représenté askan wi alors mu ne ko sa rakk bi comme mu ngi nàmp xale la mënagul dara kooku mooy ëllëgu réew mi mooy avenir bi bu dee ci politique xale bi déglu papa ji bu baax bi mu ko dégloo Euh, bu baax toog di xalaat ba guddi jot mu daal di dem tëddi papa ji yaay ji ñoom ñëpp ñu tëddi alors euh, xale bi bi mu tëddee dégg ay jooy bi mu dégloo ay jooy seetlu taxaw gën a déglu xam ne rakk ji la maanaam rakk ji nekk ci berso bi mu jug dem xool rakk ji bi mu ko xoolee fekk xal euh, rakk ji yàq na couche am maanaam def na musiba ci couche bi alors bi mu gisee loolu mu ne xam ma dem xooli sama yaay mu dem ci néegu yaay ji fekk yaay jaa ngi nelaw bu baax a baax bugg ko déranger bu leen fàtte ni nag bi ko papa ji di expliquer ci politique daf ko ne woon sa yaay mooy gouvernement bi mu fekk yaay jaa ngi nelaw mu ne kon duma ko yee bàyyi ma xooli jànq bi bi mu demee ci jànq bi fekk fa papa ji sëgg ci xale bu jigéen boobu di profiter ci kooku di di maanaam di di di sàkku xale bu jigéen bi papa ji gisu ko waaye bi mu koy expliquer politique ne woon na ko jànq bi mooy classe ouvrière bi te maay capitalist bi bi mu jógee ci loolu di dellu taseeg maam ji maam ji ne ko bul wax dara jàmm gis loo gën loo gis kon bul nettali kenn dara xale bi yooyu jaaxal ko mu daal mel ni ku réer comme xale bu ndaw la te mënul muñ yooyu yëpp mu daldi daw tëddi bi mu tëddee moom bàyyi na rakk ji ci musiba bi couche bi ni mu yàqoo bi mu yeewoo papa ji comme xamul ne doom ji gis na ko mu ne ko waaw doom ndax xalaat nga bu baax ci question bi nga xamante ne moom nga ma laaj démb doom ji daldi di ne ko waaw papa xalaat naa ci bu baax a baax ndax gis naa ni capitaliste bi dafay profiter ci classe ouvrière bi te gouvernement bi nekkewu fi lu dul nelaw parlement bi moom mooy xool lépp di gis lépp te du ci sax ngaan te ñépp seen yoon newul lijjantiwuñu li nga xamante ne moom la askan wi soxla te li ci gën a doy mooy ëllëg li nga xamante ne moom mooy njëriñ askan bi ëllëg muy ndaw ñi ñoom ñépp ci musiba lañu ne musiba bi mu wax nag mooy firndeel rakk ji mu bàyyi woon ak kuus bi guddi gi yëpp ndax événement yooyu yëpp mu mu nga xamante ne jaar na ci moom alors mbokk yi li ma bëggoon wax ci histoire bi mooy ndéem askan bi kenn lijjantiwul li mu wax ndéem ndaw ñi ñu ngi ci musiba kon tey waruñu xaar président waruñu xaar ministre waruñu xaar député ndax suñu Sénégal suñu Sénégal la bu ñu ko waree développé ñun ñooy jugal suñu bopp yàlla yàlla bay sa tool te bu ci ku ne defee li li nga mën ñun ñëpp dinañ ci jëriñu mbokk yi lii lañ leen indiloon tey pour wax leen ne rek fu waay mënti ne ci Sénégal fu mënti ne ci nga xamante ne sénégalais nga jàppal ne yow ci sa bopp yow yaay développement wu Sénégal def li la war keneen def li ko war ñu daal di ànd développer suñu réew jërë ngeen jëf mbokk El Vision Média yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy bàyyi xel tout le temps di ñu ñu ngi leen di ñaan ku ci jot vidéo bi rek nga partagé ko ak say euh, xarit partagé ko ak say nawle ndax El Vision Média lu fi lu dul askan bi askan bi moo ñu ñor ba tax na ñuy xool li nga xamante ne mooy seen soxla li nga xamante ne mooy leen tiis wala li leen yitteel ñu daal di ci taxaw def ci suñu kémtalaay kàttan kon jëre ngeen jëf ñu joxe rendez-vous beneen yoon incha allah